El Hadj Modou Ndiaye directeur de la prévention ñu ngi lay nuyu docteur. Euh, Adja Fatim maa ngi lay nuyu di nuyu téléspectateur ak auditeur TFM yëpp di leen sant di leen gërëm. très bien aywa dafa mel ni AstraZeneca bi ñu doon xaar yegsi na. Chérif ak Daouda mun nañ def seen deuxième dose. <laughs> yaa ngi leen doon rassuré leen euh, première dose bi kàddugul ci seen yaram. Euh, ba sax am na moom Modou Modou Fall mu fi nekkoon naan leen est-ce que baax na ñuy euh, jaxase ñaari doses yi nga ne leen nañ xaar <laughs> catégorie kon docteur dafa mel ni AstraZeneca bi ñu doon xaar yegsi na. Euh, jërëjëf e-, effectivement AstraZeneca bi egsi na donc Chérif léegi mun naa wax ak moom tuuti waaye nag di wax aussi que aussi rapidement pour informer aussi que toujours sur le plan ci plan jot dose yi dose yi ñu am toujours euh, motagul exactement peut-être ñi li ñu soxla yëpp pour ñu mën a jot deuxième dose malheureusement peut-être que ñu ngi xaar yeneen ñu xaarandi yeneen dose mais am na lu jot a ñëw lu am solo mm-hmm. mun nañu wax ne lu ci ëpp ci nit ñi mun nañu jël seen deuxième dose malheureusement ku ci tardé tamit dangay ngay xaaraat tuuti parce que dose yi day ñëw comme AstraZeneca ñu ngi koy xaar li ñëw nii am na leneen lu ñuy xaar mm-hmm. Sinopharm bi ñu ngi koy xaar Euh, mais également Johnson Johnson bi ñu ngi koy xaar mais nag pour l' instant quand am na solo lool AstraZeneca bi am na lu ñëw ne nga cent quarante mille doses dinañu mun a encore une fois jox ñu bëre seen i deuxième dose en attendant que ñu mun ko motal ci yeneen arrivé yi donc loolu quand même nouvelle bu baax la nouvelle bu am solo la waxoon naa aussi nit ñi ñu muñ tuuti rek ñu muñ rek soobee yàlla li ñu waxoon yëpp bu si yàlla àndee mm. dina ant daal incha waaw docteur comme euh, deuxième dose yi matul li ngeen am ci dose AstraZeneca matul nan ngeen koy organiser est-ce que dafa am ñu nga xamante moom ngeen prioriser pour que ñu jël seen deuxième dose. ah. docteur. allo. docteur waaw dafa may déggu question bi baax ko daaw da. dama ne comme que da ngeen ne dose yi ngeen xamante ne moom ngeen am. allo. allo docteur yaa ngi may dégg. léegi maa ngi lay dégg léegi waaw dama ne. waaw euh, comme nee nga dose yi ngeen am pour AstraZeneca bi matul pour que ñëpp mën a am deuxième dose. nan ngeen koy organiser est-ce que dafa am ñu nga xamante ne ñoom ngeen prioriser pour deuxième dose yi. waaw mais euh, loolu lu yomb la lu yomb la xam nga rek ñi deuxième ñi am deuxième dose yëpp ñoom ñoo ci ñoo ci yem pratiquement képp ki nga xam ne war na am deuxième dose. Mm-hmm. dégg nga pratiquement ñoom ñëpp ñoom ñëpp a ci yem xam nga mënuñu xaar Chérif xëy na dose. waaye ñëw fii am na deuxième dose ñu xaar ñu ne xaaral ba sérif ñëw déedéet hmm. deuxième dose maanaam ñëpp a ci yem kon nag képp ki nga xam ne daal farlu na ba yeeg ci ci structure de santé wala structure de santé yi génn nañu su fekkee ne da nga war a jël deuxième dose demal yegg foofu mais mënuñu prioriser par rapport à ça li ñu wax rek li ñu mën a wax rek mooy que balaa kenn di jël première dose AstraZeneca nañu bàyyi ñu jëloon première dose ba pare jël deux deuxième dose. loolu war nañ ko mën a ñoom la ñuy priorité. Mm-hmm. mais deuxième dose yépp nag ñoo ci yem képp ci mbirum jël vaccin bi. dëgg ndax leer na déet. leer na naa ñi peut-être ñu laata ñuy tàggoo ñu xool ci tendance bi euh, dafa mel ni est-ce que commencé wu ñu dugg ci tendance baissière bi. effectivement euh, loolu moom mun naa wax ne ñu ngi ci tendance baissière bi parce que newoon naa leen xët bi ni mu doon xëlee wàññeeku na. wàññeeku na mais léegi mun nañu wax nekk ñu ngi ci tendance baissière mooy maanaam que kaa yaa ngi beese. moo ça veut dire que nañu gën góor góorgóorlu taxawaat fi ñu nekkoon. Mm-hmm. gën a euh, jekk-jekkalaat ñu taxawaay. Mm-hmm. parce que cas yaa ngi wàññeeku ndànk-ndànk mm-hmm. waaye nag fi ñu taxawoon nañ ci gën a taxaw. te aussi ñu xam ne que euh, liñ ci jàpp noonu lu am solo la. Mm. nañu continuer di ko di ko def. waaye nag ci semaine bi semaine bii di dugg nii ba mu ba mu njeextali semaine bi la ñu gën a conforté mooy maanaam la ñu gën a am wóor. ci bees bi mais nag bees bi moom mun nañu wax ne que am na. Mm-hmm. Euh, décès yi nag mooy maanaam malheureusement ñi génn àdduna. ñooñu soo seetee mooy ñi nga xam ne mooy cas yu yu amoon peut-être yu. yu bëri woon peut-être ci semaine yële passé moo taxoon mais nag loolu tamit normalement bu ci yàlla andee xalaat nañ aussi euh, am nañ ci yaakaar loolu tamit lépp dina mun a beese wu kon nag nit ñi nañu xam ne que suñu taxawaay yi ñëpp moo tax seen taxawaay taxawaay journaliste yi autorité religieuse ak tout le monde ak administration ak gouvernement ak vaccination bi mm-hmm. lépp a ngi ji bu ñu dara nañu wax ne rek ku nekk na def li nga xam ne mm-hmm. loola gën pour que euh, ñu mun cee génn loolu daal la mun a wax nit ñi dégg nga nañu continuer di xeex mbas mi parce que encore une fois euh, lépp li ñuy digle daal nañ ci jàpp wér ci bis yàlla ne ndax ñu mun cee génn am na am na solo ci jamono jooju gis nañ ñu yëngatu ci wàllu nawetaan docteur ñoom jël nañ dogal ne ku ñàkk wut euh, doo bokk ci match yi doo dugg ci stade yi est-ce ñu ngi leen jàppale quand même ci prévention beeg ci ñàkk yi mën ngeen leen a firndeel ne ñàkk yi dina doy ba képp koo xamante ni kon yaa ngi ci mouvement bi nga mën a jot ci yooyee ñàkk loolu d'abord maa ngi rafetlu loolu liñ def noonu ñooñu ñi nga xam ne dañuy wax ne que stade yi wala leneen yëpp aussi que képp ku ci dugg fekk nga am euh, nga am carte de vaccination et cetera wala sa passe comme ni ñu koy tuddee dégg nga loolu ñun dinañ leen ci jàppale dinañ leen ci dinañ ci taxaw képp bépp kuréel daal bi nga xam ne taxaw na pour pour ñàkku daal te fekk vaccin yi am na ñun dañ leen di jàppale parce que ñun loolu lañu bëgg te loolu aussi moo ñuy tax moo tax ba ñun ñu mun cee génn. Mm. ñu mun a am jàmm am et cetera te loolu aussi defoon nañ sa commencé woon nañu man dem naa fii ba stade fële arène nationale ñi nga xam ne ñu organiser foofu demoon naa ba foofu ba fekk ñëpp di di organiser ñu jàppale leen ba ñu nit ñi commencé nag nañu continuer di ko wéy te euh, seen doxalin bi dañ ko rafet lool lool lool. tey ñan yan expert ñoo ñëw tey pour euh, leeralal nit ñi fi jàngoro ji toll. waaw pro programme bi euh, ñi euh, programme jotaguma programme bi waaye nag mun nañu wax ne que xam naa ni aussi dina am ñu ñëw mm-hmm. comme une fois toujours comme mm-hmm. d'habitude ñëw am ay kàddu yu ñu sànni mm-hmm. ci lépp li nga xam ne soxla nañu population bi soxla na ko parce que gis nañu pédiatre yi ñu toppatoo xale yi Euh, gynécologue yi ñëw nañ pour wax jigéen ñu wérul yi nañu ñëw euh, gériatre yi dinañ ñëw normalement ak aussi ñi yore mbirum jabet ak leneen ak leneen ñooñu tamit ñëw nañu mm-hmm. ñëpp daal dinañ leen jox cër ku nekk ñëw parce que ku nekk am na pàcc bi nga xam ne soo ko wax di nga wax ak say malade wala cër bi nga xam ne ñooñu ñi nga xam ne xëy na dañ noo amoon jiixi jaaxa ci seen ñàkk wax ndegam wax nañ ko mais ñoom ñu delloo leen kàddu gi xëy na suñ ko kàddu gi suñ ko waxee mu génn seen i gémmiñ nit ñi dinañ ko dinañ ci bàyyi xel encore une fois jërëjëf merci beaucoup docteur El Hadj Mamadou Ndiaye on vous souhaite une très bonne journée merci sant ñoo lay sant di la gërëm ci sa collaboration docteur El Hadj Mamadou Ndiaye rendez-vous euh, dans une heure euh, ca ministère de la santé point du jour euh, ni mu koy defee saa su ne mu def taxaw seetlu également.